may wax ne nee na 31 décembre Ousmane Sonko ñëwu fa 31 décembre moom 31 toujours 31 décembre la am doom beneen fii bi ñibbi maa beneen fii bi ñu toog foofu noonu moom mu ngi woon hôpital parce que jour boobu la am doom te moom nee na mu ngi woon suñu kër 31 décembre te moom jour 31 décembre la am doom ndax maa desoon si kër ga même sax beneen fii bi doon ñibbi mu ngi naan yéen des leen fii rek ñu mel ngeen mel ni jouru feet ngeen war a dem seen kër yi feetu ji mënoo leen sax génn kër gi pour naan dangeen ngeen di fay nekk fi di liggéey te ngeen xam ne tey du ngeen gis kenn du ngeen yibee benn client parce que ku nekk ànd nga ak sa jël ku nekk yaa ngi feetu ak say famille ñu ne ko noo garaawul ci guddi googu noonu la Ousmane Sonko ñëwaat na foofu noonu 31 décembre boobu ñëw na foofu noonu ba jour boobu sax moo may moom moo may beneen fii bi nga xamante ne bokkoon na ak moom xaas pour mu jënd ji ay pétard taal ci biir kër ga moom nee na après laa ko woo téléphone pour ne ko damay dem sama kër juste pour xamal ko ne mënoon naa laaj ndax jour 31 décembre samay waa kër nekkuñu woon Grand Yoff dañu demoon seen dëkk pour feetewu ji ak seen yaay ba jour boobu sax maa ngi leen di woo ci guddi ñu may xas ne ma yow daal nee nga yow liggéey liggéey liggéey ba ba sa jouru feet sax mënoo ànd ak say say njaboot dem feetu ji ba may naan yaay comprendre leen ma rek jour boobu noonu mën nañ dem Grand Yoff laajte ku neex ndax jour 31 décembre samay waa ñu ngi fa woon te nee nañ deux jours à part dem naa su ma demee fan laa sama suñu waa kër jour dañoo 31 ba pare doog a ñib si waat lii nii dem leen Grand ko ñu xaar yàlla ngeen laajte sama yaay fa mu dëkk bu fekkee ne jour 31 décembre suñu waa kër yëpp ñu ngi fa woon kenn moo fa desoon muy sama mag lenn moom kese moo fa desoon